defu ko ñi nga xam ne ñoo ànd ak président Cheikh Ba di ay collaborateur am di ay collaboratrice ñoo woote conférence de presse bi muy point de presse lan lañ ci jublu mooy leeral weddu tuuma nag jàmbaar moo koy def garmi moo koy def ñu nekk biir Médina ku ne xam sa bopp ku ne xam yaay kan

le 8 mars 2019 ca Grand Théâtre Covid 19 ñëw comme patriotisme la ñu annulé ko waroon ko defaat nag Grand Théâtre fayloo ku nekk 10 000 15 000 20 000 25 000 ba 50 000 billets président Cheikh Ahmed Tidiane Ba déedéet day waxtaan ak Wally mu defal ko ko Médina mu offrir ko li nga xam ne def ko cher muy waa Médina. ñu organiser ko ci diggante ñetti fan mu weesu njortu ñëpp nag mayu ko nag waa CATB mais waa Medina la ko may couche yëpp ña nga fa woon ethnie yëpp ña nga fa woon race yëpp ña nga fa woon kenn desul foo sànni mbattu mu tag mu nekk réussite bu total dépassé entendement yëpp ñi nga xam ne nag seen gémmiñ day nàcc mënuñoo wax jàmm ñu tiit xamuñu fu ñuy teg seen tànk ñu dugg ci réseau sociaux yi dugg fu nekk di indi ay tuuma tuuma yooyu ñu indi nag ñun ci Medina lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee gëm nañu diine yi nga xam ne moo fi nekk yépp te ku xam nag CATB xam Medina nga xam ne fii ragal nekku fi yaafus nekku fi ndaxte lañuy bañ Medina démb ak barki moom la ñuy bañ tey ba léegi tey kon CATB li mu def mu yëngal réew mi amuñu luñ ci bëgg a def lu dul xajamal ceeb bi sotti ci suuf du mën a nekk moo tax ñu woote point de point de presse bi pour leeral askan bi li xew président Cheikh Ahmadou Tidiane Ba nag nitu daara la nitu diine la nitu intellectuel la kooku duñ ci wax duñ ci jaaraat ñëpp xam nañ mais li nga xam ne moo am quand adverse bu fekkee dañu am lu ñuy wax nañ ko wax ak population Médina ndax concert bobu ñi andul ak ñun ak ñu and ak ñepp ñun dañu wëlbati ko and ak ñun parce que dañu bëgg dañu kontaan ci li CATB défal Médina kon nak ñi ngi attirer attention wu autorité yi nekk ci réew bu baax xam leen ne kat camp adverse bi li ñu bëgg mooy tuuma bu tuuma gi jeexee ñu indi fitna indi histoire indi ay arme indi paaka indi jaasi indi reyante te loolu nag bés buñ ko yëkkatee fii ci Médina dinañ xam ne waa CATB yaafus amu fi ragal amu fi ku ko ku sumb di nga ci bëgg a génn mu tëla ndax foo mënti nekk dañ la fa fekk jëflante koog yow jàmbaar la koog yow ba mu saf sap ñun nag Médina lañu am dañ koy sauvegarder Médina ñoom ñoo taamu seen bopp ñooy choisir seen bopp ki leen di jiite ku am bilan na ko wax mais Cheikh Ba du bilan Cheikh Ba du maire Cheikh Ba du président assemblée national Cheikh Ba doomu Médina la nekk Médina bëgg Médina ànd ak ay nit ci ginnaawam góor jigéen ñuy développé ci seen kéntalaayu kàttan li nga xam ne moo nekk Médina ci jafe-jafe kon nag bu ko waa Médina taamu ne dañ koy jox maire Médina

di waa kër Cheikh na Saad bu saat lenn loo xam ne moom àndu ceeg population Médina di ci def kent laayu kàttanam ndax boppam la ko defal moo tax ñu woon nag la Médina ñu leeral leen xam leen ne nag saay saay yàqul xel mais yàq nay xalaat kon ñu déglu ñu bu baax CATB nag day dem incha allah rabi kenn du ko téye wax ji mënu koo téye kàddu gi dañ koy gàttal bàyyi sama ay naataangoo ku ci nekk sànni ci ay kàddu wante daal récréation bi moom jeex na dootuñu mayti kenn dara ci jàmmaarloo bi ñuy def ci médiatique bi di ñu tuumaal di ñu sosal ci loo xam ne dara ci dëkk wante doomi Medina yeewu nañu nag dégg nañu message bu fort xam nañ ne daru ci dégg jërë ngeen jëf la presse ñu ngi sant ñi fi teew ñëpp merci beaucoup encore une fois man la Maguette Seye nekk superviseur bu CATB bu zone 1 de ci pôle communication bu CATB. Euh, je me présente Gallo Cham, secrétaire général de la CATB damay wax ci effectivement ci le président Cheikh Ahmed Tijane Ba euh, représenté ici par son coordonnateur Gourguindoui. Euh, le prétexte Maguette Seye wax moy concert bi nga xamé ni euh, Cheikh Ba may la jeunesse de la Médina à travers sa structure proxime Médina te El Abou Diop du ko jiite d'abord dañuy wax wali Seck que wa CATB le porte dans notre cœur ndax suñu dom la te jarbaat la ci Cheikh Ba te fu Cheikh Ba wo ko concert bobu c'était le concert de la paix et de la concorde bo ni le président Cheikh Ahmed tijane Ba réfléchir na ak nim ko réfléchir muy un concert bo ni qui restera gravé dans la mémoire des Médinois parce que ça a été une réussite totale apothéose la won bo xamé ni vraiment amna solo ndax xalé yi nous, nañu mag ñi nañu et massivement alors maintenant on a été très déçus trop déçus par certaines réactions Yo xamé ni à travers les réseaux sociaux génn nañu wax lo xamé ni ay katch ñoko lal ay wax lu loolu moo ko lal jalousie moo ko lal ndax il porte viscéralement le président Cheikh Ahmed Tijanba dans leur cœur li wax la percée du président Cheikh Ahmed Tijanba Ba et également la CATB mouvement politique incontournable au niveau de la Médina loolu dafay dagg seen Ce su fekkee ne nag loolu Hall, qu'ils comprennent dina yàgg dagg ndax la CATB c'est un mouvement boo xamee ni la Médina nous ko bëgg ci seen Nous ñi dëkkul Médina sax bëgg les sympathisants et consorts et non sans surprise on a été très déçus d'entendre dire que Walisek, 30 millions ko ce qui est archi faux ce qui est archi faux ñi qu'il nous donne les preuves su nous ñu gëm ni loolu ñu wax am la femme nag dafa am loo xam euh, c'est un pouvoir chancelant

ces délégués, ces soi-disant délégués qui sont sortis l'autre jour, moi, je suis très déçu. Je suis très déçu. Nous ça, mais nous pouvons publiquement, nous avons nous organisé. qui venant de la bouche des gens qui nous ne ñun ñoo na ne ko raxas wax à la coulée de Faïdès. mais vous nga le statut de de candidat favori à ces élections locales du 22 du 23 janvier 2022 ce sont les Médinois qui ont porté dans le cœur encore une fois d'ailleurs nous accordons un peu de crédit à ces propos malveillants mal intentionnés de ces gens de ces bénévoles ils sont à la à la euh, ressource du maire bi nga vision les gens lui ont demandé de dégager il doit alors dégager dina parce que domaine les techniciens qui devaient répondre ont répondu en la personne de Moustapha Diop, responsable de 37.5. Il a répondu, donc nous, ça, on n'en revient pas. Mais peut-on interdire à un authentique médinois comme une d'offrir à sa jeunesse un concert alors que de l'autre côté, nous, nous nous, nous, nous concert la différence. Peut-on introduire à un Médina, à un Médinois, comme Cheikh Ahmed Tijanba, président de la CATB, mais d'avoir des ambitions pour sa Médina natale, sa Médina qu'il porte dans le cœur. Alors, yéen wa Médina yéen la waxal Cheikh Ba espoir bi indi musul am moo détracteurs dinañu voyez, euh, le détail est dans le diable. Le diable est dans le détail. Les chiens à euh, euh, aboient, la caravane. passe. Qui il veut. N'est pas Messi qui il veut. Là, on jàpp nañ ni Cheikh c'est un don du ciel moo Medina Japoko nara jàpp ko nar a dafa am. Euh, il faut juste rappeler que Sherba, mais il est dans l'excellence. Il est dans l'excellence. Dans tous les domaines. Éducation, environnement, cadre de vie, et culture, ou sport. Comme Sherba, nous avons comme le dit notre ami, du Mbele Mbele Mbele nous comptons Mbele Mbele. Nous, nous sommes Cheikh Pourquoi il encadre la jeunesse Mais c'est parce qu'il voudrait que ces jeunes deviennent des Cheikh C'est tout et c'est normal, et c'est noble, et c'est louable. Dans le ni euh, symbole de la générosité et de la solidarité agissante Mais non, trop c'est trop trop c'est trop à ces gens-là et on met en garde les autorités on met en garde les autorités de ce pays parce que la violence verbale est en train de germer au niveau de la Médina et on a des échos comme quoi que nous am des des xalaat pour faire reculer la CATB, pour, dire, pour barrer la route à, la, Sherba, mais on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Donc moi je pense que nous saisir cette opportunité, euh, cette opportunité pour demander encore aux Bindinois nous avons dit talal suñu avec équipe de pour gagner les élections Guy. InshaAllah, allah ñu ngi leen di loxo les Médinois jeunes femmes troisième âge les anciens les sportifs les culturels yéen ñëpp ñu ngi leen di tàllal loxo te xam ngeen ni tàllal loxo bi ñu leen tàllal loxo yéen gëm ngeen ni c'est le meilleur profil gëm ngeen ni c'est le meilleur choix kon boog prétexte bii nga xamee ni concert bi ñu def ñu bëgg ñu xajamal nous on dit non et si c'était à recommencer dinañu recommencer ndax gëm nañ ni au soir du 23 janvier la victoire sera du côté de la CATV je vous remercie. alaikum wa rahmatullah. Je ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. di nuyu waa CATB nous di nu jiital la bi président Cheikh Ahmed Tidiane di nuyu presse bi fi teew yëpp tey ci point de presse bi nga xam ne moom la ñuy def man la Adja Bigué Diène di superviseur zone 3 bi ñu ñëw tey nag di doomu Ameth Diène dëkk ci Médina di sant sama sëriñ sama wasila sëñ Babacar si di wax ne yàlla nañ commencé si bisimilahi rahmaani rahim eggale ci alhamdulilahi rabil alamin tey nag li waral point de presse bi lenn rek la parce que boo naan duma tontu nit fa ngeen jëm dafa soriwul ndax wax coow li bari na wax ji bari na ndax CATB liggéey lañu xam xamuñu dàgg sante ñu ngi ñuy woo ci dàgg sante nag duñ leen wuyu ci dàgg sante waaye dinañ leen wuyu ci tontu dëgg ndax ku say nakk jeex nga aj say kooku ñun nag dañu dëkkoo Medina juddoo Medina di politiquer biir Medina Cheikh Ahmed Tidiane ba nekk fi di politique politique bu rafet nag macha allah ñun ñi nga xam ne dañu judd ci politique màgg ci politique bu ñu demee ba topp Cheikh Ahmed Tidiane ba ci politique parce que politique am rafet na ci biir Medina ñu ñu naa mbele mbele nag bari coow la ndax dañu am concert comme ni ko Alaaji Màgg Sey waxee barki Dembo Njaay ñu yàq suñu der yàq deru waa CATB yàq suñu deru leader waaye nag àdduna moom nee nañ wax ju bon dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la cosaanoo ñun xamuñu wax ju bon duñu def lu bon liggéey lañu xam Cheikh Ahmed Tidiane Ba daf ñu taatagal ci liggéey ak def promotion de la femme et des jeunes ñun looloo ñu tax a jóg di créer ay emploi di dimbali jeunesse su Médina te bëggul ku ko wax waaye nag yàlla sax bëgg na ku ko ne jërëjëf mu nekk biir Médina amul budget dafa yor poosam rek nekk directeur général ak ay nit yu baaxam ñu nekk ci wetam benn ku mel ni suñu coordinateur bi toog di El Hadj Gorgui Ndoye nekk ci wetam ak superviseurs yi ko wër yëpp ak Proxim bi nga xamante ne lii moo ko organisé woon ñu koy jàppale ci seen poos ak ci seen xel waruñu fen ñaanaatu ñun suñu biir ñun ñooy dimbalante bañ nañ ko ba lu am biir SATB ñun ñooy cotiser suñu biir ba ci barki dee moo njaay dégg ngeen annonce bi jigéen ñi def ne caution Cheikh Ahmed tiijaan ba bu neexee yàlla yàlla may ñu wër ak fekkee ci élection yi ñu jëm jigéen ñee koy joxe. ci suñu ay calebasse nag suñu liggéey ñuy liggéey di daan suñu doole rek mu may ñu doole nag jàppale jigéen ñi nag wan ñu ni ñuy liggéeyee jàngaluñu xasse jàngaluñu wax ju bon jàngaluñu wax ju ñaaw ndax ñiy wax wax ju ñaaw ñun ñoo nekkoon démb ak barki démb ñoo nekkoon ensemble di politikandoo man benn fa ñu rootee man fa laa meññee ñi ñuy traité de d'homosexualité pour lan wax jooju tudd ko si gémmiñ sax dafa araam waxuma nag di ko jiit nit nga nekk maire nekk ci bërëb nekk si institution di génne ay wax yu ñaaw di ko wax rafetul ndax waale nag doomu jàmbur la nag ku ne bëgg na koo jur te ku ko juróon doo yàq dara ci Ahmed tiijaan ba mii woo Wally Seck mu jël bëgg mbubboo loolu ñu yàq ay image ñëpp xam nañ ne télévision bu burlewaan da ngay gis couleur yi ñun CATB ku bon nekku fa yéeféer nekk fa kuy def lu bon nekku fa xamuñu sax loolu mooy tudd nii rus naa ko tudd sax amu fa ay nit ñu di ñu am personnalité ñu xam ni ñuy liggéeyee ñu xam politique ñoo nekk biir CATB ñu gis Cheikh Ahmed Tidiane ba am taxawaay boobu ñu topp ci gannaawam di ko accompagner di ko bunge ñun du ñu ànd ak ku ñàkk fayda ah du ñu ànd ak coomo Medina gii nag ñun ñëpp ñoo fi juddoom màggee fi dañuy politique nag politique bu set la ñuy politique ñu politique politique gu xaste duñu politique politique gu saaga li jiitu concert bi mais meeting boo meeting tudd Cheikh Ahmed Tidiane ba waaw moom la mooy programme am xanaa Cheikh ba mooy programme am <laughs> nañu wax ban programme la teg Medina. Si on fi toogee ba la on parle de programme programme la mais meeting taxaw Cheikh Ba meeting taxaw Bilan mais bilan bëgg soxla bilan un bilan On Cheikh Ba bilan bilan mais donc ñun nañu may bilan on soxla man li may wax tiituma ci ragaluma ma ci duma wax lu bon duma wax lu ñaaw nàmp ma ko xamuma ko mm. mais dëgg la ñuy wax ci domaine politique la ñuy wax dafa waxal ñun ci politique ci politique lañ koy tontu donc boog na may Cheikh Ahmed tiijaan ba mii jàmm kii julli la xam jàpp wérd def lu baax dimbali miskin yi ñi ànd ak moom it loolu la ñu xam mm-hmm. wax yu ñaaw yi on en est marre dañu sonn ci wax yu bon yeex yu ñaaw yi dàq ñu ko ah dañuy politique nag dañu am suñu ay Dom, suñu ay rak suñu ay Jarba, yu nek suñu wet ñu leen di jox des bons exemples bëgguñu ñuy dégg suñu wax ju ñaaw bëgguñu ñuy dégg suñu ay saaga bëgguñu ñuy dégg suñu ay xassante nag Medina ñun ñu ben lañ. ño bokku nday ño bokku bay kër go dugg di nga fa gis ñetti parti yu bokul ñu andando di politique da du tax kenn xex ak kenn du tax kenn xulo kon kon bok mom gis nga domaine bobu mu ñuy wo non xex ak saga wax yu bon yoy ñun duñ ko ci wuy parce que xamuñu loolu. waaye nag bu wax dëgg jotee nag dañuy waxante dëgg nag dañuy politique nag te kenn mënuñu faagaagal kenn mënuñu tey gis nga suñu yoon bii nu jël bala 23 janvier bu neexee yàlla incha allahu rabbi bu neexee Seydina Mouhamed ak sama wasila sëñ Babacar si mi nga xam ne mooy sama wasila moom laa yaakaar tey ëllëg dinañ egg ci 23 boobu dugg ci mairie bi bu neexee yàlla te ànd ak wér parce que nag on naa ne asse ban nguur moo dul jeex. ndab kenn du ko ñett. gis nga loo ñedd mu faq. wallaahi loo ñedd mu faq. donc kon boog Medina nee nañ doyal nañu Cheikh Ahmed Tidiane Ba la bëgg mu nekk seen maire. incha allah au 23 di euh, janvier 2022 ñu teg ko fële ci maire yi bële. bu neexee yàlla. waaye nag xanaa tey jii moom la seexlu xaalisu Cheikh Ahmed Tidiane Ba. ndax Cheikh Ahmed Tidiane Ba dafa yàgg def teraanga nag jëmale ko ci moom. nañ waxante dëgg. muy jël muy jël nit nag da ngay përax nag da gërëm ñamu daaw politique bi jarul xaste jarul saaga jarul waxante lu ñaaw jaru ko fii fi lañ juddoo fi lañ màggee kon ku dëkkul Medina ñu jox ay directives ak di ñu wax fi ñuy jaara fi ñu dul jaara ay tapet la ñu duñu ay tapet dañu am lu ñuy rus am lu ñuy xool am lu ñuy jommal suñu bopp ndax ay kilifa lañ nag ay responsable lañ mais na ça veut pas dire que ñëpp a ngi naan CATB duñu wax duñu wax parce que liggéey moo ñu gënal wax li ñuy naan un tonneau vide fait beaucoup de bruit waaw kay gis nga bari ko bu deful dara day bari bruit ñun liggéey la ñu xam te dinañ wane ne dina dañoo ngi liggéey nag incha allah bu élection yi egsee dinañ won li ñu liggéey waa Médina nañ ko teg seen loxo ndax Cheikh Ba nag dimbali promotion de la femme day def wala barki démboo ñaay déclaration bi mu def dinaa yëkkati 100 millions teg ko ci table bi dimbali jigéenu waa Médina waxul waa SATB de waa Médina la wax waa Médina képp koo xam ne Médina nga nekk tey jigéen ñëwal am nga ci wàll nga liggéey kiy jaay chandisa kiy jaay crème ñëpp la ñu boole waxuñu ko bokk fii ak bokk fële. kon bokk kon Cheikh Ahmed Tidiane Ba mii nañ ko jàppale ne te delloo ko njukkal wax dëgg neex yàlla ndax si ñun loolu lañ soxla te at bu nekk nag mu def ko. li muy dimbali tey jii xëy na du bësu nekk fi di wax li nga xam ne moom la investir Médina mais buñ ko doon wax du fi jeex. parce tamit nag wax dëgg neex yàlla yërëm na population Médina yërëm na jigéenu Médina yërëm na xale yi Médina yërëm na maguy Médina li muy def ci Médina li muy yóbbu màkk ci waa Médina kenn xamul nan la toll pour ñu ziyaare ji rasulullah koo yéene àjjana ngay yóbbu màkk kon boog ñun wax ju ñaaw ji dañ cee sonn nañ ñu bàyyi may ñu jàmm ñu liggéey Cheikh Ahmed Tidiane ba du bilan wam Cheikh Ahmed Tidiane ba mi muy jël di ko prononcer chaque jour si ay discours na ko bàyyi nangaang mu yàbbi mooy mais ki fi nekk rek di tudd turam. institut waaw. tudd ma ko mooy maire de la Médina. Kaboy Ba Kaboy Fall non non non ragaluma tudd turam. du dëgg. waaye xam nga maire jeexal na wax.

Euh, n'est aussi euh, le chargé de la communication politique je pense que Dieu fait bien les choses la Médina est dominée par des jeunes cher Boy qui qui nga maintenu un poste aussi stratégique bu responsable politique ba journalistes yi nga xamante tay ay doomu medina lañ ñu si ëpp. demoon Gueule Tapée Fass Colobane bi nekk suñu ay doomu nday lañ de pour di fa def déclaration pour li nga xamante mom moom toucher touché di impacter directement la population de la Médina. ma ngi leen di remercier si seen taxawaay bu baax a baax a baax parce que concurrence dafay andi changement te changement day andi développement kon alhamdulilah li waral euh, point de presse bi parce que point de presse la. Mhm. parce que bu doon conférence de presse la ñu jox leen parole ngeen mën a wax. moo tax dañuy joxe ñun suñu point de vue bàyyi leen ngeen yóbbu bés bu ñu waree def conférence de presse boobaa ñu échanger ak yéen ñu dem ci plateau yi télé yi pour mën a wax ak yéen. li waral point de presse bi c'est par devoir de vérité il faut rétablir la vérité mhm. faut oser le dire euh, ragal dafa baaxul ci àdduna. il faut oser le dire.

dama bëgg ngeen jël image yu sama yaay booy bi toog sama gauche ngeen jël ko bu baax a baax a baax a baax mu doon mère bu baax bu am diine am valeur lu tax moo wax loolu mooy que politique lii la bu dee manipulation day am sax day am si anam bu ne ba day laal sax ay famille mm-hmm. est-ce que Médina loolu la ñuy mais des fois di nga déggal nit ba def loo warul def mais politiquement, c'est de bonne guerre lañuy wax mais bandi ngi si C'est de bon la dafa xam lu muy def te da ko insidieusement on a accusé Walisek sek yobou ko côté LGBT par rapport au concert à la Médina parce qu'il a joué pour Cheikh Ahmed Tidiane Ba ne lolu dama bëgg je parle pas au camp du maire parce que ça fait 10 ans plus de 10 ans de si mais je parle aux Médinois. pourquoi quand Walisek jouait pour le camp du maire quand El Ajketa jouait pour le camp du maire pourquoi Tcholi Amoul parce que c'était eux nous sommes démocrates nous sommes républicains et nous incarnons des valeurs comme notre leader mënuñu sages parce que les saga sax leader de dala koy et nous wuñ ñu parce que femmes ont des valeurs Wally Seck da ko wax mais li mu wax man Omar Sow ak ñi nga xamante ne ñooy ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba xam nañ ne que juddu Cheikh Ahmed Tidiane Ba yiw na jëmmam duñ ci doyal ci ay valeur laa wax de parce que soxloo ma ànd ak nit ba amul valeur na leer kon loolu moo waral coow li léegi bu loolu amee gis ngeen ñu joué si si artistes yi joué ci plateau boobu noonu gis ngeen mbooloo bu am parce que show bi kon dafa réussir motax tax coow li mm-hmm. parce que man li nga xamantene bi bi 3 juillet concert bi mi amé ba paré li am il y a une ruée de leurs de leurs anciens sympathisants de leurs anciens militants vers la CATB parce que dañ may wo téléphone ne ma Omar neexul ba neexul wante sen leader bi daf ñu neex mom sax laay jappalé légui parce que mo gën mo moo gën

sur ces sept dernières années C'est beaucoup d' mais bu fekkee ne tey tiit nga jaaxle nga yaa ngi dugguñ sax pré campagne ñun instant yi dañuy lancement de dañuy foo nii di waxtaan suñu biir defal surprise euh, waa Medina parce que surprise parce que ça a été préparé en très peu de temps dañu doon foo en fait parce que gis nga politique boo koy def des fois da ngay wàccee tension bi nga def piano piano mooy Macky Sall li mu doon wax euh, gars golor yaay ak soow gars yi di wax rek moom day liggéey gars di parce que lu mu wax gars yi andi ci dara ragalu ñu fu ñu féete ragalu ñu tamit fu ñu jëm que ni am capacité bi am compétence mais am des gens de valeur qui sont derrière lui pour l'accompagner pour le pour pour pour pour le mettre à la tête euh, de destinée de des Médinois loolu am solo la pourquoi mu koy attaqué te du moom kese moo fi nekk parce que Cheikh Ba dafa tàmm liggéeyu suuf li muy def yëpp suuf la su